seen i xët euh, bëri ngeen ci génn ba noppi nekk ci bërëbu liggéeyukaay yi ñi tardé nag ñoo génnagul parce que huit heures moom jot na euh, te ñaare euh, liggéey bi day tàmbali huit heures ci entreprise yu bëri yéen kaay yeeg xët maam biram dañu koy njëkkee ak une bu l'observateur l'observateur mi xëy tey ak porte parole bu xalif général kullum Mouride di Serigne Bass Abdou Khadr ay kàddoom la yéen kaay bi titré ci français interview avec le porte parole du xalif voilà Pape Cheikh sëñ Bass Abdou Khadre wax nga ko waxtaan gu yàggoo gi nga xam ni kon seq nag ak suñu natango yu l'observateur di si nag ci euh, poñ yu bari euh, bokk na ci kon sax euh, gën àdduna sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine ba mu xewee ak lépp loo xam ni daal te taxawee na ko waaye it lu jëm ca jaaykat yi nga xam ni foofee ci Touba ne woon nañ ci yenn ci ay gox yoo xam ni daal laajoon na kon ñu yëkkati leen fa di xam ne sax que ni fu mu toll nii daal lépp lu ci dinañ ko def gunge jaaykat yooyee moo xam sax dugal leen ci yeneen marché yoo xam ni ñoom kilifa yi foofee te Touba ak état bi taxaw nañu temb ngir loole lépp kon mun a mat foofee sax ca Touba ñu ngi ci wattaayuk màggal gi euh, màggal googule nag vox populi ci la xëy ak njorteesam jëm ci ñàkkum ndox ñu ngi liir ci xëtu yéenekaay bi maam Biram ni dernière réunion préparatoire du màggal l'eau source d'inquiétude à Touba yéenekaay bi di vox populi Pape Cheikh wax nga ko kon ci euh, xibaar yi nga xam ne ni euh, bind na ko soxal ñàkkum ndox googee kon ñuy coow ba mayul foofee ca Touba jëm sax ci ay sabotage yoo xam ne daal nemeeku nañ ko nee nañ foofee ca réseau bi waaye xam ni kon dinañuy def euh, lu ni mel euh, kilifa yi taxaw temb kon ngir xool ñan la ak it daal ngir loole mun a dakk waaye ba tey di yowoo euh, askan wa fa nekk ak it ñu fay ñëw kon ñu waajal baax seen bopp jëm ci it euh, dafay réserve ndax it lu euh, mun a nekk la kon dàquñu ko euh, kon am na daal ay matuwaay yoo xam ne fàttali na ne kilifa yi jël nañ ko état bi ngir ko ndox bañ a doon jafe-jafe ren ji it màggal ga nga xam ne nii dinañ ko war a amal àllarba. ci màggal gi sax yéenekaay bi di Le Quotidien xëy na ci ñoo ngi gis ci bopp xet bi ni akuk jaaxle moo juddu jëm ci wopp gi nga xam ne ni ko fan yële ñu ay cas ci yenn dëkk alors psychose euh, de la dengue gagne Touba loolu ñu ngi koy liir ci xëtu yéenekaay bi di le quotidien ba noppi itam euh, le quotidien ñëwaat euh, ci aéroport bu yees ñu tuddee ko Blaise Diagne ubbite gi jàpp nañu ko ci ndorteelu décembre la AIBD la tudd ñuy liir ci xëtu yéenekaay bi le quotidien ni retard dans la livraison des œuvres panne sèche sur le tarmac. voilà Pape lu jëm ci dengue boobu sax joriñ bi Abdoulaye Diouf Sarr yore santé moom tegoon tànk foofee ca Touba kon nemmeeku bu baax liggéey nga xam ne ni service service am ñu ngi koy amal waaye xam li matuwaay nga xam ne nii kon ministère de la santé et de l'action sociale jël na ko mbirum jàng bi nag taxaw na xam le ko ni kon jamono ji tiitaange daal mën na cee bañ a am te foofee ci Touba kon dañ def lépp it ba lu ni mel du fa am moom Abdoulaye Diouf Sarr kon euh, Pape Cheikh fàttali ne kon am na tukki ne meek mu amaloon foofee ca Touba lu soxal ay BD di aéroport euh, international bu Blaise Diagne lu jëm ci euh, wàccaay bi ubbite bi juróom-ñaari fan ci comme ni nga ko waxee nag panne sèche sur le Tarnac quotidien xaatim ko jëm nag Pape ci kérosène nga nga xam ni kon bokk na ci liy doxal kon roppalaan yi jamono ji nag nemeeku kon ne daal am na ci ay jafe-jafe lépp ngir li ñu jëmal ci inauguration bi kilifa yi niñ ko bëggee mun a am teewul aéroport bi le 7 décembre bu midi jotee euh, ci la ñu koy euh, ibbi foofee ca Diass ouverture aéroport international Blaise Diagne le témoin ci la xëy tay ci xetam voilà le témoin moom i dellusiwaat ci ndax xam nga kii di euh, porte parole gouvernement bi à titre conseil interministériel bañ fa amaloon talaata ci ngoon dellusiwaat na ci xam ne ni kon kilifa yi taxaw nañ temb ngir inauguration bébé ñu amal ko ci ni ñu ko bëggee donte sax liggéey fu mu toll ni am na lu tuuti li ci des waaye daanaka lépp noppi na ci wàllu koom rapport doing business 2018 enquête ci la xëy tey amal ci gëstu ñu ngi lii ci xëtu yéenekaay bi ci français Mambiram le Sénégal rate son pari le Sénégal rate son pari euh, yéenekaay bi enquête di fàttali ne kon kilifa yi seen bëgg-bëgg doonoon na bokk ci 100 euh, maanaam téeméer réew yi nga xam ne daal ci classement bi dinañ ci nekk waaye boo xoolee jamono ji ñu ngi ci téeméer ak ñeent fukkeelu place bi waaye nag am ab jéego goo xam ni Sénégal def na ko ndax it jóge na ci euh, téeméer ak ñeent fukk ak juróom place bi ñëw ci téeméer ak ñeent fukkeelu place bi ci ay réforme yoo xam ne jot na ko def ak it lu jëm ci ay réglementation lépp kon ngir fii ci biir Sénégal environnement des affaires ak euh, yu ni mel doon loo xam ni daal du am jafe-jafe Amérique am na attentat waaye am na itam ay doomu Sénégal lu ñu teg loxo jëm ci enquête boo xamante ni mu ngi jógee FBI Libération euh, moo ñu koy xamal ci xëtam bu njëkk ñoo liir inculpé et écroué euh, pour trois crimes fédéraux aux États-Unis di yoo xam ni kon nee nañ daal ñoom ñoo ko def di ay doomu réewu Sénégal foofu ci États-Unis Pape Cheikh enquête bi nag ba tey di am waaye doon loo xam ne ni euh, doy na waar tax it lañ leen di tuumaal jëm ci ay cambriolage ak yeneen ñaawteef yoo xam def nañu ko foofee États-Unis doon loo xam ni kon kilifa yi nekk foofee sax bëgg nañ daal lépp lu ci am ñu xam ana naka la tëddee. ñu jeexal ak stade mi yëngu ci wàllu tàggat yaram xëy na ak waajtaayug euh, match bi jëm ci diggante Sénégal ak Afrique du Sud. Sadio Mané kon euh, ñu ngi laaj ba léegi ñenn ñi sax euh, di laajte kon ndax dina bokk ci match googe nga xam dinañ ko amal ak Afrique du Sud yàggatul dara fukk fan lay doon ci weeru novembre laata kon ñu leen di fii ci biir Sénégal kon Sadio Mané stade samp laaj googe ndax it gaañu gaañ yoo xam jotoon na ko am waaye mel ni xelit ñu ngi koy dalal moo xam entraîneur am ba ci sélection nationale. ko ni Sadio daal ba mayul dina mën a bokk eh, ci jongent yooyu nga xam ni kon ñu ñëw voilà loolu sax tey l'observateur ni c'est une bonne nouvelle pour euh, équipe nationale bu Sénégal bonne semaine de Sadio Mané donc qui va rejoindre la tanière pour match boobu li nga xam ni euh, ñoo ngi koy euh, préparé ci suñu diggante ak Afrique du Sud li ci des nag ci yéen